boroom pàkk bi te Abubakar Sidiq bi daal di wax ndaw li te mooy ministre boobu ne ko man daal jaayuma tey jaayuma ëllëg te xam naa ne it soo ko dee foqal ci doole defoo ko ci kaw ndigal te boo ko defee danaa dem ba ci ki nu boole yilif ma jàmbat ko ko ndax xam naa nit ñi moom bari ne tooñkat waaye nag Maamun muy xalifa bi te yabal la moom ñim bokk ñi banul xabaas ñu màndu lañu duñu tooñ te di ko tey mbaa boog daañu moytoo tooñ te di ko tey daal fa xadiba te mer al wasiru ministre ba dama amara toog mu digle bi xaddimi ci ak màbbam a ci màbbu néeg ñax boobee xataa azala ba mu dindi al asara jeexit ja naka borom pàkk bi wax loolu ki yebal muy ministre bi daal yëg boppam mer lool ne ayca na fi néegu ñax bi jóg da santaane ñu màbb néeg bi jële ko fi ba mu set ba mel ne mosu fee nekk waaye ndama jaa ba dikkalee alxalifata xalifa ba alxabaru xibaar ba tabaddala soppiku na asafaawu sell ga minhu ci moom bil kadari ci ak nax waxaalte mu wax lil wasiiri ñeel ministre ba ma haada shatatu ana luy gile jéggi dayo kulul la si lépp li nga xam ne fa altaxoo def nga ko aynul xalati mooy dëgg-dëggi njuumte mooy jëmmi njuumte daal mooy xëy na bi fi di jëmm bi xalifa bi déggee ne kim yebaloon kat def na ay ndax forcé na borom pàkk ba ba màbbu néegu fa nekkoon mel ne dara ma sufa nekk xalifa bi dafa daal di mer lool mel ne àdduna safatut ci moom dara dara neexatu ko ci àdduna am lu ko naqar lool daal di wax ministre bi ne ko li nga def ana foo ko teg li nga def dara du ci dëgg dara du ci aw yoon lépp njuumte la ah it dellool ilaa jaariya jëm ci sama dëkkandoo ji daakal man si la googee kër chiimatu naa nun kat sunu jikkoo fii xaw mi naa ci sunu nit an na adila nu an na adila moo di nu maandu xataa yaraa ba dana gis ba adee ci sama gannaaw kullun naa si képp ci nit ñi ne an yi naka man xafistu wattu woon naa almulka nguur ga bil xistaasi ci balaasu maandu wa tusmaha ak ba dee fi dégg boo ko atafee ci xataa yaraa wa tusmaha ak ba dee fi dégg ak zikra fàttaliku ga bi àddulil baani ci maanduk aji tabax pale boobu fii mulki yi ca nguuram nga wa zikru te ak fàttaliku bañ a fàtte xumurun ak dund la taalin guy aji ñaareel dafa wax ministre bi ne ko demal delloo néegam ba defaraat ko na meloon ndax nun kët dañoo bëgg jëfalanteeg doomi aadama yi ci kaw rek maandu ci kaw jaar ci yoon ndax dañoo bëgg ban fi bàyyikoo ñëpp xam ne ban fi nekkee ak maandu rek lan fi nekkee woon nekk lu fi woon rek di tooñ jaami yàlla yi dañoo bëgg ban fi jógee daal ña fekke woon gis ku ñëwaat ci gannaaw bi dégg ne ki tabaxoon pale bi buuru jullit la bu maandu woon a maandu ndax ñu lay fàttaliku sax dunduk ñaareel la maanaam boo fi jógee taxul ñu fàttali dina fàttaliku day mel ne rek yaa ngi fi jógoo fi alal fataa ci cam sa asaaruhu ay jeex itam te dullu lañuy tegtale bi xadriha ci kem jeexit yooyee yu xaru la dee fi ko xeebe aw yu jàllu wala dee fi ko màggal mu ne ko nit ku ne ay jaar-jaaram bu fi jógee ci la ñu natte dara jaam benn ñu xeeb ko mbaa ñu yëkkati ko dara jaal ko bi topp nag ibni sama doom ibni yow sama doom yaa xolmiya yow sama gént yaa nashwati yow samak màndi yaa moo xibar riqati yow aji yeeji yërmande wala ak sew fii muqlati ci sama nagu bët wi li chiari ñeel na way wa fii aynayka ci sa ñaari bët maqtuxatun ab dog masluxatul angaami bu di buñ nocci ay way wala ay xeeti misik an mu xëjat yi wëlis sama nagu xol wi masloox boobu daa bàyyi ko ci salaxa bi firi fees na maanaam fees aw der mel ne rendi bu noppal batiku fees la nga rendi wa fi mu xayyaaka nekk na ci saxar kanam idmaamatun ab takku fleur maanaam puuki yaa amali yow sama mébét yow sama doom yow sama yaakaar yow mi neex ci man bu mel ne ak màndi maanaam mbégte mu réy réy rek mel ne ak màndi yow mi def yërmande ci sama nagu bët mel ne sa bët yi day jëmmal morsob musique boo xam ne bu neex a neex lay doon sama xol di ko taataan sa kanam gitam day mel ne benn takku fleur bu ne xet boo xam ne lépp luñ cay mbébét ak xemmam rek ma nga ca waaye nag wax yi ni wax yi ni jeeñeer la su fekkoon ne moom mi ko wayoon defoon na ci ay leeral lay gën a yomb xam lam ci jublu dëgg-dëgg tatoofu danga war bi ak man fii xaalamin ci ab mond raaqisin bi aji fecc ala aranil xubali ci wayi xeeti fóon ya alxolwat ya aji neex alxolwat ya aji neex min ay na anta yow ana foo bawoo min jinaanil hawa danga bàyyi ko ci àjjana yi bànneex am min xusoori nuuri wala yaa ngi bàyyi ko ci palay leer fil jannati ci àjjana dafa mel ne day waxante doom ji naa ko yaa ngi wariloog man muy dem nekk ci place boo xam ne bu neex a nekk la dañu fay fecc ka fóonante mu neex lool yow daal xaw ma foo bawoo rek ba ànd ak man di wër ak man ci fu rafetu noonu neexe noonu ndax dangaa bàyyi ko ci palay leer foofee ci àjjana wala ana foo bawoo daal wa kay fa aqbalta ak naka nga dëgmal see xalaa sahwati dalaali ci gannaawuk naaru góoru njeegat am fii xaw da jin nadrati wala ci warukaayu nutax ga ka ànd ka daanaka yow an naxalatu yaay yamb wa fii rawdatin ci ab jardin tax fu dana dem min zahratin bàyyi ko ci tóortóor ilaa zahratin jëm ci beneen tóortóor dane doom ji dafa mel ne yaa ngi dëgmal si war ci naaru góoru tiitar war ci warukaayu nutax ak taaru xam nga gone moom du xam dara mën naa mu yëg boppam ca na ko yàlla melal ca na mu nutaxeeg na mu taaroo dangaa mel ne aw yamb bu nekk ci ab jardin di naawe ca tóortóor be dal ca beneen tóortóor awil kanaariyu wala boog yaay piccum kanaariyu xalaa rabwatin ci kaw aw tund tastadbiu wow dana tofloo alkarrata ak ku kàddu ga maanaam del toog kàddu ga bil karrati ci del toog kàddu ga day wax ne doom ji dafa neex mel ne piccum kanaari yi moomu nga xam ne dafa nekk ci tund kàddoom neex nag muy sob kàddu ga di awu fële di awu fële bi laftatin ci ab geesu rekk lil xun ji ngir njeegat aw lir aw lir rida wala ngir gërëm maanaam ngir xol bu sedd xun ju njeegat muy semi wala tiitaru tu fajjiru da nga fettal albasmata muuñ ga bi ndam xati ci sama rongooñ tey mel ni ku wax ne yow sama doom ji man ngaa geesu rek benn geesu moo xam xol bu sedd tax nga def ko wala danga tiitaru mbaalu ko muru loola day neex ci man ba su fekkoon may jooyit jooye soppiku ak muuñ wadam xatin akuk rongooñ toqab tiru goog day toqal a ruuxa ruuga min xëy nii bàyyi ko sama bët watu xiixaa te mu koy junj illaa wajinati jëm ci sama nenk tang nenk tang mooy pegg bët rekk xëy na mu jubloo wax ne bu gisee doom ji muy jooy day mel ni loola day génne ak ruuxam ci bëtam ndax day mel ne da koy tax a jooy jooy goo xam du rongoñ mooy génn waaye aw ruu day mel ne mooy génn ci bëtam aw ca pegg bët ba ñu koy tuddee nenk tang xëy na kon day jeeñee rek ni nga xam ne moom la jooy doom ji mën a jeexitale ci moom sori ci xolam ëxwaa ko danaa la sopp tax zoo ngay attaqué albayta néeba laa waax yeen doo aji wattu zajjir yi sama jàjj sama tere wala mu baali yeen te doo aji faale xadbati sama mer xam nga léeg-léeg sa doom moom gone rek loo xamul li muy def day dugg ci néeg bi rek di rajaxe boo ko aaye itam du xam li nga koy aaye boo dee mer ak xuppaate it loolu moom xamu ko mu ne kon da koy wax ne ko man daal dama lay sopp yow saa doom ji ma la gisee itam ngay song nee bi di yàq ka yàqaate ma lay aaye ngay bañ a ka mel ni faaliwu sama merit maa ngi lay sopp rek mu zaxridan mbir mu ngay aji way zaxradatal xoori kem wayu jigéeni àjjana ya fi rabihi ca lolli ba lil qudrati ñeel natax ga mel ne wert ga wa zurxati ak bula ga maanaam melawu bula mu ar bi da mbir mu ngay aji ñaaw jikko maanaam mbir mu ngay aji jëf-jëf ji ñaaw xar ba data sayfi kem ñaaw jikkook ete muy cooroon fil jadwali ca yolma wal xariifi ak ñaaw jikkook nawet ñaawuk jikkook nawet fil marjati ci béréb bu naat ba gone léeg-léeg mu bët di wayantu di maare neex a xool lool léeg-léeg itam nag bu naqari deret ñaaw jikko mel ne bi gone gi neexee deret di wayantoo ko maare da koy nuroo léeg buñ tolloo ci jamono yi lool li foo xool rek mën a tax neex a xool ngay dégg kàddu yu neex a neex mel ne kàddu yu jigéen yi àjjana yi mel ne kon goneem gi doomam ji bu tolloo ci jàmm ak wayantoog mbégteeg maare noonu lay mel bu tolloo bu xale bi tolloo nag ci maraka xataru mel ne bu doon mag ñu ne daa ñaaw jikko mel ne ne boobu la koy nuróoleeg jamonoy cooroon ni mu tànge ak ni muy feeñe ci ndox yeeg jaww ji wala bu dee ci ñoom nawet nam daan feeñe ci garab yeeg seen naataange yi ndax daa mel ne ñoom seen nawet daa wuuteeg fii dañ daan gis booba naataange soppiku mel dañu naata tut bu nawetee wuuteeg fii nun nawet lay taw mu gis naataange waaye loolu lépp moom nee na xale bi fu mu ci mën di toll ci mbégte ma ak xataru ko ak naqari dara ga moom doomama mi ngi koy soppaka sopp rek waaka dinaa la sopp tartami ngay xalangu xalaa saahi di ci ko sama përëk xalaa saahi di wa fil jufóoni te nekk na ca mbari bët ya ranchatun naasati loxuk gëmentu ga ranchatu daa xaw a nuru li ñuy wax dong dong ku mu dal na muy loxe loxe yi katkati man nga ne ranchatu naasati katkati gëmentu ga day wax nu muy soppe doom ji bu doom ji gëmentoo ba mu téye ko ci ay loxoom di xool nag mbari bëri gëmentu gi melawul buréer waaye gëmentu gi feeñ na ci mbari bët yi foofu neen day neex ci moom lool mu sopp ko lool ak xussu danaa jàngat xissatan aw léeb fatus xii te ngay déglu wala tal ba sute doo sax an tax voo ba da nga nelaw xalaa xissati ci sama xissa bi day dellu di wax naa sama doom ji danaa ko di léebal aw léeb mel ne kuy déglu léegi balaa léegi àgg rek mu mel ne day nelaw yaa xaaliqal jëfni yow aji tëj mbarum bët ma wala yow aji gëmm mbarum bët ma xalaa rawxatin ci ab taar yaa faatiha taxari yow aji ubbi siiñ ma xalaa basmatin ci ak mooñ yaa naqrata zahwi yow te guub puukarewu naqaratu tëgg wala fëgg xalaa urgun yi ci sama urgun urgun jumtukaay misig la ba tax saraa bi naa aalatun musiqiyatun orgi la ko tubaab yi wax orgi yaa rannatal xanaa i yow wayantuk mbégte ñu wax rannatu xarandamtal neexantal fii naxamati ci sama way mbaa ci sama misik yaa xafwatal maadi yow nelaw yu neex yi lëwéy wala nga ne yow nelaw yu neex yi démb xalaa xaadir yi ci sama tey awar firi nag xalaa xaadir yi ci sama aji teew wa yaqwatal aati yi tey yowwug aji dikk jë xalaa xafwat yi ci sama nelaw xafwatu xambeen dañ koy faral di wax ci biir wolof mu yàgg mi waaye mooy nelaw rek yow mi nga xam ne soo gëmmee xef sa mbari bët mu rafet lool soo muuñee say bëñ di feeñ mu rafet lool sa kàddu neex bu mel ne dëgg ci jumtukaay yi misik ngay sama mbégte di sama lépp lépp yaay sama démb yaay sama tey yaay sama nelaw yaay sama yeewu dafa wax daal wax yu ni bare bari yoo xam ni wax yu ni jeeñeer la ak wax rek nu doom neexee ci moom mbaa boog di misaal rek kenn ku ne ku yàlla xéewale doom na doom jay neexee ca moom tarbiyatul banaati yar xale yu jigéen ya li maaroof arrusaafi moo way way yi xiye ñoom al axlaaqu ñoo di jikko ya tam butu danañu sax kan nabaati mel ni gàncax ida suqiyat ndeem nàndaleef na leen bi maa il makrumaati ci ndoxum teraanga ya jikko rek nee na moo am solo jikko nag des ko war a ji muy sax ñu di ko suuxat di ko toppatoo day wane ne yar rek mu am solo bu ñu xësee xam jikko yu tedd yu baax yi taxaw temm nag ci yar ci xale yu jigéen yi nga xam ne bu ëllëgee ñooy soppiku ay yaay loolu ci la bëgg a jëmale xasida gi taquumu danañu taxaw ñoom jikko ya isa tahahadaha ndem nemmiku na leen al murabbi aj yarja xalaa saaqil fadilati ci peerub ngëneel moptimiraati mbir mu ñu way meññ dafa nuróole woon jikko yi ak gàncax gu sax aajowoo suuxat mu ne nag jikko yi buñ leen suuxatee ci ngëneel maanaam ci yare kañu yar ci ngëneel ak mbaax day mel ne garab gu sax nga di ko suuxate ndox mu sell te ndox mu mànkiwul benn yoon mu daal di màgg daal di ñor sa xol sedd ca meññet ma ki ñu yar itam rawante na bu dee gone bu jigéen noonu rek lay mel buñ ko yare yar bu baax rek mu daal di yaru képp ku soqi ko ci moom rek la nekkoon ci yaay ja feeñ ci moom mu daal nekk gone gu baax a baax wa tas moo danañu yëkkatiku lil makaar yi mu jëm ca teraanga ya bitti saaxin ci ak toftaloo daal maanaam bintu zaamin ci ak nosu kamat tasaqat ni ki mate mbaa ni ki toftaloo ana bii bul xanaati poñi xeej ba xeej daa am ay poñ poñ yi sax daañu ko faral di jubanti bëgguñu jub mu ne nag jikko yi moom toppatoo rek a ci am solo buñ nemmi ko jikko yi daal gis mu sotti ko jikko yu tedd nosoo maanaam jikko yu amuk déggoo nit nga xam ne ab xeej su fekkee dafa ami poñ te poñ ya ñàkk a déggoo boo ko fuddee ba mu jub rek lépp day mujj déggoo poñe yépp ànd mel nañu war a mel jikko itam yar rek ci am solo ko yar rek mën naa amee jikko yu tedd tedd jikko yu matamat watoon xichu te danañu dekkalaat min samimil majdi ci aji seel li tedd nga ruuxam ruu bi azharin ci ay tóortóor laxaa ñeel leen mutadawwihaatin yu di way bonni tun xachu bàyyi ko ci an xacha ngay firee dundal ko wax dekkalaat waaye mooy mel na fekk jëmm ju deexoon ñu defaat ci dund akuk tàlli day wax ni jikko yu tedd yooyu lu mat a sàmm la ndax day mel ne fuñ baaxoo fekk teraanga buñ fa jiyee jikko yooyu te suuxat leen bu baax a baax ngay daal di gis mel ne teraanga ji dafa dekki jëm kaw boroom garab nga ne mu daal di tóor tóor ne xet bari meññet ñu di ko xayma ma ko séentu walam ara musuma gis li xalaayiq yi ñeel jikko ya min maxallin benn béréb yu xaddibuhaa ba dana leen yaraka sellal ka xidnil ummahaati lu mel ne wetu yaay ya xidnu ak wàll lay firi mooy wet doom ji nekk ci wetu yaayam daal yaayam toppatoo ko yar ko te fekk ne yaay te fekk yaay ja itam amee woon yar boobu ci cosaan na nga koy defee ci doom ji daal gisut keneen ku ko mën a def ci gone fa xidnul ummi wàllu yaay ja madrasatun école la tasaamat boobu yëkkatikoona bi tarbiyatil banina ci yar doom yu góor ya awil banaati wala doomi jigéen ya yaay daal moom école la boo xam ne ku yebu rek bàyyi ko gone ga moo xam gu góor la moo xam gu jigéen la moom moo koy njëkk a yore te bu fekkee moom yaay ji ci boppam nekkoon na jigéen ju mat école la boo xam ne kon day daal di defar gone ga jàngal ko yar ko moo xam nag gone ga góor la moo xam jigéen la wa axlaaqul walidi jikkooy gone ga tuqaasu def na leen xiyaas mooy def na leen natt xos nañ ci ab taar bi axlaaqi nisaayi ci jikkooy jigéen ña alwaalidaati ña di way jur xale ya te walaysa rabibu aaliyatil masaaya déet ku ñu yari jigéen ji aj yëkkati ko ay ngëneel ka misli rabibi saafilati sifaati muy mel ne ku ñu yar ci yaayu ji aju suufe ay melo gone moom nee na boo bëggee natt jikkoom ba xam fu mu toll ci rafetaay ngay seet yaay ja ko jur yaay ja ko jur daal jikko yam amee mooy feeñ ca gone ga say boo rek seet jikkoy yaay ja nga natt ca jikkoy gone ga jikkoy doom ja yaay joo xam ne day ko rafeti jikko bu amee doom yar ko dana wuteeg jigéen ju ñàkk solo ju faaliwul dara am nag doom yore ko ka yaayam nekk di ku baax a baax ku rafeti jikko dana wuteeg lool ka nga xam ne yaayam day ku ñàkk ñàkk solo kenn yoru ko amut melawu ñuy taamu walay sa naptu déet gàncax ga yam butu muy sax fii jinaanin ci ay jardin ka misli napti muy mel ne kem gàncax ga yam butu mbir moom dafa sax fil falaati ci àll ba gàncax gu ñu ji def ko ci biir ab jardin di ko suuxataka nemmiku di yam ak gàncax goo xam ne dafa sax yaay rek amul koy nemmiku amul dara ku koy toppatoo muy sax yaay rek noonu ca mbooy ga dana wuteeg gàncax goo xam ne dañoo wutoon jiw ba mu sell ñu ji ko ci duukar ba mbaa ca jardin ba di ko toppatoo toppatoo ba gën a yell yaari gàncax yooyu daañu wute lool day wane ne yaay yu baax yi itam seen doom dana wuuteeg yaay ya nga xam ne rek kenn yoru leen amuñu melawu ñi taamu fa yaa sadral fataati yow da nut xale bu jigéen bi raxubta yaatu nga sadran ci xol fa anta yow maqarru asnal xaatifaati yaay saxukaayu gën jaa yëkkati koy sentiment ya wa ma darabaatu xalbiki déet fëggi sa xol bi xëyru darsin ndari muy ab bind ab leçon li talqiinil xisaali ñeel saye jikko ya alfaadilaati ya di way gën talqiin saye mooy jàngale rek laqana sana talqiinan mooy masdar mi day mel ni kuy wàqanteeg xale bu jigéen bu baax bu rafet xol ku mel ne yow day ci la ñuy mën a amee gone yu baax a baax yu yaatu ab dënn rafet ay jikko fekk na ku mel ne yow rek moo ji ca moom loola mu sax bañ di ko jariñoo yow jigéen ju baax ji buñ dee déglu sa xol muy fëgg ni nga xam ni moom la xol yi ci des di fëggee itam day yow day sa fëggi xol moom bind la rekk boo xam ne dañ ciy jànge jikko yu rafet yi te gone goo jur rekk mu jële ci yow jikko yu rafet yooyu kon nag jigéen ju baax ju mel ne yow nañ fexe bam baree bari yaatoo yaatu bu ko defee seen lépp di am njàngale doom ya soqikoo ci ñoom daldi amee jikko yu rafet rafet fa kay fa nazunnu naka lañuy jorte bil ab naa ci doom ya xayran aw yiw ida nasha oo ndeem sosu nañu bi xibnil jaahilaati ci wetu yaa yedi way réer waxal yurja ndax def na yaakaar li atfaalin ñel ay gone kamaalun ak mat idar tabaxoo ndem namp nañu su di yan naaqisaati weeni jigéen ña di way manki mu ne su fekkee ne jigéen ñi jur gone yi dañuy ñu réer a réer xamuñu xàmmewuñu ah loolu mën nañoo yaakaar ne kon mën nañoo am doom yu baax buñ dee jigéen ñu réer lool xamadi lool xamuñu lu ñu war a jàpp ak lu ñu war a bàyyi ñooñu buñ amee doom